Vai. Não, não, baú não. moom moo moo doon borom lu bëri non alburi moo ñu jël nga tànk ku mën a jël tànk bi leen Modou fu mbay ñuy mbay ñu noonu ñu bàyyi leen leen xool en image moyen de xool Papa

Modou ak Papa Sow ñooy contact noonu Modou ak Papa Sow Modou daan na gi yaram ngeen na mu bëre Papa jël na tànk Modou war na ko noom

Kontak Modou Lo Papa Sow Modou Modou daa mel ni wér na léegi de. ñoo jàppante noonu Modou ak Papa Sow ah Papa na Modou Lo ndoom Papa Sow wër na Modou Lo wër na Modou